billahi bismillahi inna waliyallahu wa ma tawfiqi illa billah barke borom Tuubaa salaamaaleykum wa bokki julli yi bokki taalibe yi bokki Tuubaa ci kanam maa ngi leen nuyu maa ngi leen nuyu képp ku seen tur seen sant di leen baal àq di leen tey jégul kàddu yi ñu njëkkati tey mosu seytaane mi nga xamante ne nii ba mu yàqulee ba tey bëgg ku baaleeti yal na yàlla ba si ci moom tey gën a jébbala suñu bopp Sëriñ Tuubaa di ko jox suñu lépp te bàyyi ko suñu bopp tey jël kàddu gii di ko jox ci Sëriñ Abdou Lahad mi xam jëwriñ la mu jot li bokk taalib yi nga xam ne ñoo yor ci jokkandikaay yëpp yi mu yónnee dégg naa ko xam ne ñëpp damay rek ñaan ñëpp ñu calme sa def ndànk rek dal ndax àdduna lépp ñu koy waxtaanee rek loo gis bañ ko bañ ko def nañ ko wax ba noppi ñu def ba noppi waxtaan rek la xëy na erreur am na ci juum am te ñi ko def ci xëy na jubluñ ci lenn way ñee jum rek ñu ñu nangu jum te jéggal leen si yàlla tax ndax afal la waaye wa man aadam fa yantaqim laahu minhu ñëpp am ñu jekk ci seen tension mel xaw a wax ne tuwaaj nangam nangam yooyu yëpp amu ci man mi nga xam maa waxoon ne képp koo xam ne bokk naa pas-pas néegu ñaari mi nga murit kenn ko joxe ñaari téeméer maa waxoon loolee Sëriñ Tuubaa farma ba ba ba kàddu yi àgg fu ma àgg lépp baaxu sëñ du man xam naa doon ci dara waaye sëñ Tuubaa moom mi laa ñaanaat mu dellu ñu dimbaliwaat ñu ba nañ ko wootee woon nit ñi wisuñu ko loolee mu jàlle ko ba fu mu war fu ko war àggale rek waaye nañ xam ñun daal pël yu tey politique yu ëllëg ànd ñoo ma sàmm ànd ñoo ma demba fëruñu kenn bëdduñu kenn kontuñu kenn tim nag ñu daal ñu ñu ku yaakaar sëñ Tuubaa lañ woon ku ñu bokk pas-pas woon ku mu neex ñëwal ànd ñoom ci liggéey sëñ Tuubaa bii ku mu neexul toogal jéggal nañ la waaye nag par parlu ñu ci kenn de dugg nañ ci ma sàmm dugg nañ ci ma dem ndax man sax yow doon ko xamut jëmma ci dugg tey jëmma ci dugg ëllëg tey kenn koo xam ne nit nag bu bu bu neexee da politique yi bu neexee na ko def lu ma neex waaye dama ñaan rek ku bokk ci Touba Ca Kanam daal boo duggee ci cadre Touba Ca Kanam moom nañu dimbali ma sàmm bu ci dugal ma dem ndax loolu taxuñu taxuñoo jóg fu mel nii lay petaxlu dugg fa bëgg fa yàq ay nit ndax ñaa ngi tension yaa ngi yëkkatiku nit ñaa ngi tàng ku ne ngi wax ci loo xam ne jëru ko woon te ñun li ñuy def yàlla rek tax nañ ci def seede Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moo ñuy liggéeyal mu xam na ko moom moo ñu ci rek kon ñaan ñëpp ñu dal te ànd ak tey te xam ne doomu aadama mooy juum ku du juum amul yàlla rek ku du juum nit ñi ne bu ñu juumee ba def erreur nañ nañ nangoon def ne erreur te te te jubbanti leen te yàlla ji aw yoon rek man daal da ngay xamee ne tàll naa ñëpp sama loxo yaata naa sama dënn yaa da am ànd dal bu ma sëkk sëkk sëkk ñépp te yàlla tax. lu ma ci waaye mën a wax tamit jégal naa ko lu ci waaye mën a seen blaat tamit jégal na ko ndax ñun dañuy jiital ngeen jiitaluñ ci liggéey bi ñu ànd liggéey Sëñ Tuubaa kon bu ngeen jiitu liggéey bi ñu ànd liggéey Sëñ Tuubaa bu ay nit defee njuumte ñun ci ñoon la jëm si waaye ñun nag ñu nangu ne ñum njuumte li ay njaboot ko def njaboot nag bu juumee borom kër ci boppam mooy taxaw ne juum ngeen waaye lu mel ni du amati incha allahu taala fas ñi nga xam ne Moussa Mbaye sëñ Moussa yow mi xayaa sëñ Amar yenn yor communication dañoo fas yéene lépp loo xam ne déggati ngeen ko wala lu ngeen naar jàlleeti na ngeen ko indi ñu càmbar ko xool ko ba xam nu mu demee ñu du ko jàlle waaye bu la jàlle loo xam ne euh, yëguñu ko ndax loolu di indi yàq-yàq rek ndax ay tension yu bari ñu di naan tuwaaj kanam ne dem ba ñu bëggee suñu mbuum yi ñu solal suñu mbuum politique te dee di xëy noonu ñun day fa suñ ko yéen mukk ci àdduna ndax loolu ñuruñu ndax kii defal defal nañu ba nappi defal gi suñ tuwaaj defal na dañu sëkk wala ñuy wutali keneen ndax ñun amuñu kenn faluñu kenn amuñu nomination amuñu affectation kenn duñu sanctionné kenn duñu dàq amuñu retraite lépp luñ nga a jëm mag suñ bi di gën dox loolu sëñ Tuubaa ñu warloon ba ñu booleeg moom boppam lépp kon ñuy sant sëñ baax a baax a baax kon nag am te kon ku ñuy politique wala am na ku ñuy woote dara muy Seexul Xadiim rek dañ ko def ñu tàmm lañ sëñ Tuubaa jëm sëñ waaye bu ñu kenn indi mbuum politique wala mbalaan politique wala bu dëkk la ñu nii bu ñu dëkkut ñun ñu foofu te wóotuñ ko te wóotuñ ko ëllëg ku ci def njuumte nag ñu ko jéggul ci yàlla tax te te ñaan ñëpp ñu dal te ànd ak te xam ne Tuubaa ci kanam daal feeg ñun yàlla duñu bàyyi suñu xel yi duñu bàyyi suñu suñu suñu sago kenn lu jógalu toll noonu te mën ci dara fas yéene képp ko xam ne fetti nga na ba ne da nga ci dugal lu lu ci bokkut ci yëpp gis nañ fi yàqu euh, nañ ko yi fi yàqu nag yëpp seytaan rek ko bëgg yàq ak bëgg daraja ak bëgg alal ak bëgg te yooyu amul njëriñ ñu naan nañu ay taalibe te dox ci pas-pas te xol rek ndax boo waxee moo tontu ni kii waxee mu tontu nii loolu day suusale xol man na maa jéggul ñëpp lépp ci waay naqar nit maa ko teg xam naa ni ma jege yàlla ndax boo ne ñaari mën yow murit ba ni mu di ñëw bu fekkoon ne ñëwuñu woon kenn du demee nii mu ko ci àdduna kon bi njëkkee loolu dana ci dugg si nag waaye li ci dugg si nag ñi xam ne ñaan nañ Sëñ Tuubaa xam ne moom moo mën a ngànk bopp tëj kenn mënut a ngànk bopp tëj kon Sëñ Tuubaa kon Sëñ Tuubaa bopp tëj na bopp bi tëj na da ko ngànk te mooy ay taas yoo ngi yëkkati ko yoo xam jëru ko te loolu seytaan rek moo ko ba yàq seytaan yi ma nag na nga jaar suñu diggante moom ba liggéey bii fa bëgg yóbbu bëgg mu bëgg fa te ñu ko fa te mooy Tuubaa jiit dëkk yëpp yàlla nañ ko def te yàlla na ko suñu loxo ñun ñëpp maa ngi leen sant di leen gërëm di leen yàlla ngeen te ñëpp di see tefe sëñ Tuubaa sëñ Abdou Lahad maa ngi nga jàll nga jël kàddu lu ci jub nañ xam ne laa ci jublu fekkee dafa am lu ci jubutim nañ xam ne jublu laa ci waaye jublu ci lan lu loolu maa ñaan rek euh, ñun ñëpp ñu delluwaat te dal te yi nga xam ne génn nañ ko muy ojo muy muy audio yeeg affiche yeeg yëpp nañ ko dindi man sama photo bopp sax nañ ko dindi bu ci def dara kilifa yi ngeen di yónnee ay carte ku neex ma nga utaat utitation yi ko kilifa ga bu fekkee jar na ko ceew waaye du tudd ay leader politique ay nangam nangam mel ni da far fii bala far fii te fii dëkk bi toll jëru ko ñun naa anduñoo kenn kenn kenn ku du Sëñ Tuubaa konturuñ kenn ti nag kenn ku ne la yàlla fa la yàlla teg ni wa jox lañu wàccuwaay boobee te ñaan yàlla dimbali la ci la nga nekk rek waaye te yàlla dimbali ñun ñi xam ne li ñu nekk mooy liggéey Sëñ Tuubaa Tuubaa ci kanam loolu donc mooy mooy mooy Euh, mooy tàmm nañ sëñ bi yem ci sëñ bi fas yéene liggéey sëñ bi duñ la mukk mukk ci àdduna ngir ñëw ngir sëñ Tuubaa ba def ñu ne woon leneen ko def xalaatuñ ko si ñu ko sëñ ku ne nag compte ñi nga xam ne ñoo nekk ci suñu te te mooy moom mun taxaa nañ xool ci moom rek ku xool ci moom doo jóg mukk ci àdduna yàlla ko yàlla bàyyi lu yàgg yàgg yàgg su yàgg ñoo gunge ñu ànd moom ci liggéey bi ba foo ko sëñ Tuubaa soob mu yóbbu ko fa ndax liggéeyam la moom tawfiix xam na ji ko yàlla tawfiixeele ba as fii ndax li musu am kon nag bu amee lu mel nii seytaan il fokk mu ñoom ndax dañuy wax seytaan day day yor yoon nag day fekk nag seen nag mu jël yoon nagam tàbbal ci tàbbal ko ci sa biir nag yooyu yuuxu nag yi mu tasaaroo loolu la bëggoon mooy mooy fenk la yëf mu jeex ndax yàlla ko kattanal ku fekk ab aj ab yoon ci biir àjjana nga nga yónnee ko fekk ab yoon ci yoon sallallahu alayhi wasallam ki xam ne moo gën ñëpp nga féewee ko soxnaam ba xadis ko wàcc loolu lépp seytaan li mën na ko doon ina seytaan adoon lakum fattaxisu adoon yéen maa yeddu ay zoli ak ñu asabi sayir seytaan mu bëggul may am kuréel boo xam ne nag mën nga rek yóbbu leen safara ci ñaar si weta yàlla ci yàlla musal loolu nag nañ xam ne yuridu an yutfi'u du fi jëkk waaye yàbba laa du fi jufit ñi xam ne ñu jëne yëf yi lisaan day fay waaye ñun ñi bañ taxaw ñu lisaan ñu taxaw daa ñaam ñu taxaw ñu ne yëf yi dana fay waaye ñun ñu taxaw ñu du fay mukk ci àdduna kon yuridu an yutfi'u du fi waaye wa yaba Allahu du fi jóg xam ne ñu ngi ci lu metti loo xam ne dañu ñaan yàlla rek mu dimbale ñu boppam ndax si Abdou Khadre daan wax ne jàmbar am kuñ dimbale ñu am kon yàlla na yàlla dimbale te te dal rek teñ dal rek nañ dal rek dal rek lépp lu doomu aadama kàddu gu naqar yi kàddu gu neexul kàddu gu naqar lu mu lu mu la xañ lu mu la may rek mën na ko xañ kon nag nañ ñëpp wàcc seen tension te dal te xam ne mbir mi kenn moomu ko kenn jaay ci pouvoir kenn jaay ci daraja kenn jaay ci dara dara lépp sëñ Tuubaa ko kenn amu ci dara itam nag man mii xam ne ngeen wax ne maa ngi seen jidd ci liggéey bii rek maa ngi seet subhaanahu wa taala mi nga xam ne moo binde ci kanam moo gën a nekk ci seer na ko kon nag da xam benn daraja wala benn pouvoir wala alal wala lenn loo xam ne da nga koy sàkk amu ci ndax li ñu sëñ Tuubaa defal defe ne ko ba ñu ko sant sëñ Tuubaa baax a a baax ñaan yàlla li ñu sëñ Tuubaa defal ko defal ñëpp te mooy ak doylu te mooy xéewal yoo xam ne ñi ngi sant yàlla bu baax a baax kenn bañ juddoo ba la gën kenn mosuñu dégg ci politique kenn mosuñu dégg ci par parloo wala ñu dugg ci ni kenn bay xool ci ron lool xalaatuñ ko suñ tuwaay tàmbalee ci ñam te suñ ko génne mukk ci àdduna liggéey bi tim su fekkoon dañ ko wootee nit ñi bu xamoon dañ ko wootee nit ñi dugg ci ay politique duñ ko woote mukk ci àdduna waaye dañ woote wuñ ko ngir politique dañ ko woote ngir kaay liggéey suñ tuwaay kaay ñu liggéey suñ tuwaay ku ñu fekk ñu ànd ak yow képp koo xam ne dem nga ba loolu mënutoo ko def nga seeti ñoo ànd ñu koy defi waaye ñun defuñ ko tey defuñ ko ëllëg asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi jégalu lu baax a baax lu ci dëng nañ ma jégal te xam ne in uridu illa islah mastatu wa tawfiqi illa billah alayhi tawakkal wa ilayhi unab asalaamaaleykum wa rahmatulah barakatu seen mbokku taalib Habib Mbacké moo doon moo doon jot ay kàddu yi rek ak uh, am loo metti lool rek xam ne seetaan yi nga xam ne bàjj bi ba yàqool bi rek bëgg ko wax rek moo tax rek ma ma ne alerte moom ngir yuuxu ko xam ne ko kat xam nañ fi nga jëm da seetaan boo xasee xam teggi la kon seetaan xam nañ fi mu jëm te la Cheikh Ibra Fall waxoon ne na seytaane onze billahi min seytaane yi taxu ci mucc an luy tax mucc ci seytaane ñu da nga dem gaar bi ko dàqee woon te mooy gaarum ndigal nga toog fa kon dem na ci gaarum ndigal ci te mooy keppaaru Sëriñ Tuubaa toog fa moom mi nga xamee ne ay yestaminila indi jë iblis inaa di taw yàlla moom mi nga xam ne moom moom seytaane naa ko ci pexeem kenn seytaane mënu ko dara ne dugg ci biiram rek waa ngi jégalu ñëpp tey ñaan subhaanahu wa taala mu duggoon ci yaa rabbi ij'al lil muridina maxan fii xasni xaasi wa samlañ maxan واجب لها خير من الجهات الست واكفئني افد وكن أمامي وكن خلفي وكن أوستي وفي يميني سمان يا رجاء كلي بكسي خديم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته